أعوذ بالله من ميلي لغير رضا ومن سدودي عما سن أو فرض بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قاد للأمان mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu dellu si waat fii nag ñun mboolem taalibe yi nekk fii ak jullit ñi ànd ko ci Amérique di waajal bis bi nga xam ne mooy bis bi ñu jagleel xasiiday Sëriñ Tuubaa yi ñu gën koo xam ci xasaayu day bis bi nag ren muy amee ci Washington DC ni mu daan amee ci benn ci dëkk yi nekk ci Amérique at mu jot te mbooloo mi di ko taxawal muy tombeek ñaar fukki fan ak benn ci weeru avril muy le 21 avril bii ñu jëm incha allah ci at mii ñu nekk di jiital ci nuyoo boobu nag Cheikh Mouhamadul Muntaqa moom mi tànnee fukk suñu borom ci liggéeyub Serigne Touba bii nga xamante ne moom la ñu seq ak itam di ñaanal mboolem njabootuk Serigne Touba gi nga xamante ne jiitu ji nañ di ci jiital rek ki fi mujj a jóge di Cheikh Sidi El Muxtaar euh, suñu borom dolli leen ak njéggal dolli leen ni leerte te taas ci seen barke. noonu lañ koy ñaanale mboolem jullit ñi rawatina kilifa yi jullit yi ak fu ñu mën a nekk ci àdduna ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñëpp dañoo nekk di bay waar wi nga xamante ne moo waraloon suñu borom yónni yonente yi ah sëriñ Tuubaa nag abdullahi wa qadimi rasulihi ah nammeelam gépp ci dundam dafa doonoon rek taalif ay mbind yoo xamante ne da koo jagleel suñu borom ngir ñu xam ay melom ci wuute gi mu wuuteeg lim bind lépp ak itam jëm ci yonente bi sallallahu alayhi wa di wane ay jikkoom ak i meloom mu wax ne shukurullahi shukran yasurruhu alayhi salaatullahi ma faasa man labba mbind mi li muy bari bari lépp da koo def ngir mu nekk mbégum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne muraadiya idqaalu sururi ala nabi alayhi salaama man aduwi bihi kabba moom sëriñ bi it mbind moomu li muy bari bari lépp daf koo def ngir mu nekk mbég ci yonente bi waaye mu nekk loo xamante ne dañ ciy mën a fàttaliku di ci jàng ci ay melo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaye munuy fàttali jikko yu rafet yi yonente bi jikko woo woon ilal muntaqa awsaltu qattan yasurruhu dakartu lahu zaatan lahu maa sifatihi ah bis boobu nag niñ koy waajalee ak jaamu yàlla la lépp mooy jàng alquran jàng qasida ci maanaam xeet yu wuute ak itam li zikkar ak itam li nga xamante ne mooy bernde waaye la ca gën a ëppati solo nag mooy taalibe yi nekk ci Amérique yëpp xëy daje ci benn bis dundal bis bi ci toog jàng alquran ak xasida kon alquran jooju incha allahu jamono yi ñuy wax ak yéen liggéey boobu tàmbali na lépp muy durus ak alquran te lu ci nit di barkeeloo rek mën nga ceewoo Serigne Mouhamadou Ndiaye ci numéro yooyu ñu leen di wan ci suuf li nga xamante ne mooy wàllu organisation it sëñ Mademba Diagne jiite ko képp koo xamante ne bëgg ngaa jàpp ci liggéey bi ndax ku ne xam na ne fu waa réew mépp di daje loola dana aaje ab liggéey moom it mën nga ko woo muy Serigne Mademba Diagne ci numéro bii ci suuf ah, mooy jëm ci wàllu euh, finance nga xamante ne moom bu amul bis du dox Serigne du jaaj mi ko jiite numéro moom lañ leen di wan ci suuf wala it képp koo xamante ne bëgg nga cee barkeelu mën nga yónnee say barkeelu ci kon bank account bi nga xamante ne moom lañ leen di wan nii ci écran bi te lool lépp rek jëm ci liggéey bi bis nag niñ koy defee ci Washington di ci ànd ak euh, waa Washington gépp waaye waa Amérique gépp ñi ngi sàkku ñëpp euh, waajal ko teew te lépp ñu sellal ko ngir yàlla ak jëmmi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te it bu ñu agsee li nga xamante ne mooy diggante góor ak jigéen ndax ñëpp a fay daje ñu fexe ba xaajaloo bi rafet lool ni ko Serigne Touba bëgge woon te it ci bis bi lépp ñu toog euh, maanaam jublu rek ci durus ak jàng alquran ba ba nga xamante ne euh, ñibbi yewi ko jot na Euh, niki noonu it incha allahu euh, ci wàllu organisation ak ci mboolem commission yi nekk ci bis bi nga xam ne danañ ko soxla survey bi nga xamante ne dañ koy soxla maanaam képp kuy ñëw jël ko ku du ñëwit jël ko moo xam ci yeneen dëkk yi ngay jóge moo xam dëkk bi koy organisé di Washington ngay jóge bëgg nañ ñëpp jël survey boobu nga xamante ne euh, moom lañ leen di wan ci écran bi ni su ko defee loolu danañu wan ñiy ñëw ñaata la ñu jeexale nag euh, sëriñ bi moom dundam gépp daf ko jagleeloon suñu borom di abdullahi waaye jagleel ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam muy qadimi rasulihi loolu mbindam mi buñ ko doon xool du génn ñeenti baat laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah ak nekk abdullahi ak nekk xadimu rasul ba moo waral turam wu siiw wii ñëpp xam ko ci liggéey boobu nag am nañu ko ci jiitu woon ndax ku mel ni kaabu ak xasan ñoom ñi nga xamante ne dañoo jamonoonte woon ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon liggéey ci wàllu tagg waaye ñoom ñooñee de lañ am sëriñ bi biñ ci tegee bëtam dafa bëggoon a mel ni ñoom ni ko waxee ne lahu sirtu abdallahi billahi wahdahu xadiman li xayri alxalqi xattan ka xassana mu waxaat feneen ne kaabun wa xassanun wal busayri qad bara'u wa kulluhum fi aruhu nuurun wa asraaru waaye nag ngëneelul suñu borom dee su ko jagleel ñi jiitu woon waaye nag itti jim joxoon liggéey boobu ak farlu gi ak jeexal ci dundam dafa tax nag mu mujj yàgg dem baraw ñooñee ni mu ko binde wax ne raditu anil baaqi wa an xayri xalqihi wa fi madhihi jawastu kaaban wa hassana kon liggéey boobu moom la ñuy màggal liggéey boobu moom la ñuy dajale di ko toppatoo te jamono mënu ko bàyyi ginnaaw ndax njariñul adduna ak alaxira moo ci nekk kon ñi ngi woo ñëpp di sàkku ñëpp teew le 21 avril fii ci Washington ñu ànd dundal bis bii nga xamante ne moom lañ jagleel xasida yi Serigne Touba yi te lépp di ay leer yu jóge ci suñu borom ni nga xamante ne noonu lañ koy defee it allah saa bu nekk télévision bii nga xamante ne mooy Bichri TV incha allah dana ànd ak ñun ba waa adduna bépp ñëpp di ko mën a seetaan ni mu koy defee ci yeneen xew-xew yi nga xamante ne day xew ci lislaam rawatina ci yoonu murit kon ñi ngi leen di sant di leen ñaanal tey ñaan nag mboolem fu ab jullit nekk ci adduna bi rek nga jàpp ci liggéey boobu ndax ñun murit yi kat ni ñu fexe ba am su maanaam suñu yëfi bopp ci lépp noonu lañ war a fexee ba am suñu yëfi bopp ci média jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu